di jaale Sathiès di jaale doom yëpp di jaale njaboot gi yëpp di moo monde làmb di ñaan suñu borom xale ko àjjana fi mu jëm mu gën a ko fi mu jógee daal incha allah masa ñu ngi masa bu ñëpp daal incha allah waaw waaw rafet dafa war a rafet te dafay rafet sax parce ñu ñëpp xam nga làmb suñu métier la waaye lii moom bokkul ak làmb quoi lii moom këru dëgg la quoi ñu ñëpp fi lay mujj quoi donc ku ci am tiis rek ku ci mel ne papa dafa jege xool torop donc foofu ñu ñëw masawu Balla masawu njaboot gi masawu ñëpp incha allah jaajëf. waaw ñu gis ni njabootu làmb saa yu tiis mel ni amee dañuy gis ñoom ñëpp ñu àndandoo doon benn mu mel ni kon sport moo leen boole yéen ñëpp yéen bokk ndey yéen bokk. waaw loolu dafa wane solidarité rek solidarité nekkul bànneex rek solidarité naqar sax solidarité la ñëw bokk ak moom tiis bi masawu ko au moins bu ñu gisee sa affaire xaw moom tuuti daal waaw loolu moo tax ñu ñëw masawu ko ñu ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay kon sama moo bi may bu jeexee jeex bu ñu bëree ay adversaire lañ mais bu jeexee ku ci am tiis war nga am naqar war nga am bànneex dañu ñëw bokkoo yow quoi loolu mooy àdduna quoi àdduna amul solo te Papa Double Less nu mu juree Balla noonu la mu juree noonu la juree Sadio noonu la juree keneen ak keneen donc bu fi jógee dañuy ñëw ñaanal ko masawu ñëpp ñaan suñu borom xaree ko àjjana bu baax parce que icône la ci làmb tamit làmb da ko bàyyi xel bu baax